leen moom moo jël xew mi moom moo téye Saara ni ci loxo Bour Gueweul maa ngi lay nuyu. nuyu naa leen euh, di am mbégte lool nag ci liggéey bu rafet bi ngeen di def di wax rek ne comme ni ma koy waxee chaque jour rek réew jeunesse sa ko yor waaw ma gis ne leeral leeral leeral leeral ay gone ko yor Grand Théâtre TV ay gone ko yor waaw di remercier nag. sama xarit sama frère Talla muy nit ku baax di nit koo xamante ni vraiment mi ngi contribuer ci musique sénégalaise mi ngi jàpp bu baax mi ngi yëkkati gars yi mi ngi leen di wane waaw. Pape Diouf moo woote Saraba. waaw Pape a woote euh, xam nga Pape Saraba millième la euh, gëjoon nañ ci loolu nag parce que ku ne xam ne temps yi tournée yi dafa tegloo woon dañoo dem tournée européenne ñibbisi tombé koor gi koor gi jeex ñu dem tournée américaine ñibbisi waa Mbour jël ñu contrat wu 48 heures. kon amuñu woon chance jouer Dakar weekend passé lañu amoon chance jouer Dakar ak weekend bii njox gars yi seen déwénal rek noonu kese lay demee ndax Pape nag mooy borom Dakar. ngeen defoon tournée euh, tournée bi foofu naka la demee woon. waaw vraiment def nañ tournée bu jaar yoon def nañ tournée boo xamante ni vraiment bokk na ci tournée yu gën a marqué Pape Diouf surtout tournée américain bi passé un mois lañ def Amérique tournée européenne bi un mois lañ def Europe te un mois yëpp booy xool date off yi 48 heures la doon wala 72 yëpp lañ ko joué. Quand nga gis ni artiste bi mi ngi développé ci biti bëgg nañ ko vraiment je may wax ak yow fii ba décembre Pape Diouf bouclé na contrat am contrats. ba décembre. ak ñan la bouclé contrat y a na ci tournée nationale am na ci tournée internationale mi ngi préparé album am mi ngi ci préparé anniversaire am fële ca place de souvenir ak fi nga xamante ni mooy euh, anniversaire bi pas 48 heures lañ koy def un dafay am méridien ñu une place de souvenir dinañ def tournée nationale. dinañ def ay euh, région yu bari kon xam ngeen fi par exemple bi bouclé nañu kon liggéey rek woor wóor liggéey rek woor bu ngeen ñibisé ci tournée bi da ngeen accélérer sara ba def ay soirée lu accélérer bi waaw xam nga dañ ne dañ ne dañ ne mbeur ci lamb ja jour ci terrain ba mais waykat ci chaîne ba waykat ca chaîne ba artiste lolo lolo ko jik muy way di bigal ay fansam ndax senegal dañoo taamu dañoo taamu ne même bo amé contrat diko jouer ci biti sax bu ne gisul Dakar as art bii rek duñu comprendre da ngaa génn liggéey dañ naan artiste bi déggatuñ ko or que boobu mi ngi ci liggéey bo xamanteni wax dëgg fa yalla mi ngi ci ay contrat am moo tax Dakar dañu bëgg wa Dakar yëg ni Pape Diouf mi ngi Dakar motax buñu fi nekké rek dañuy jouer tax ngeen jël sara Ba nii rek pourquoi pas yenen boîte waaw euh, yenen boîte yi ñu ngi koy jouer sara Ba day boîte bo xamanteni tay ji da bok ci pap Diouf na Pape Diouf tiji tijjiwaat sara Ba bobu sara Ba mi ngi tuddu Bulwi ba tay sara Ba tuddu sara Ba kon dafa bokk ci carrière Pape Diouf mënu ko daw mais déjà ñi ngi waaj a dugg Almadi pour tous fi week-ends vendredi ñi ngi woon chez Kacha xam nga avant ñoo um koon ñi ngi woon chez Kacha ci kaw kon ñi ngi joué ci yeneen bois yi Ndakaaru nag comme ni ko Pape waxee rek dafa xat moo tax dañuy daw génn fu ñu toll mi waxee war nañu dem Thiès la 14 war nañ dem Mbour le 7 te Mbour dañuy joué fi concert pare enchaîné dem Mbour joué fa soirée le 14 dañuy joué fii concert dem Thiès joué fa soirée kon affaire xat na mais nag damay invité rek ma bëgg ne leeral taal yow laay waxal de ak waa grand théâtre dama bëgg bu ma jugee rek ngeen topp ma bu leen tayal nag bu ma jug rek topp leen ma waa mais nag xam nga tax yéen actuellement da ngeen di wane ndaanaan yi te nag artiste bi ku ko wane rek la bëgg da wax dëgg fa yàlla seen liggéey set na kon man maa yéene su ma jugee ngeen topp ma topp leen ma rek <laughs> jaajëf